koy def Sall yokkul ne ma ci ginnaaw tuuti yokku ci ginnaaw bu baax yéen ñi si aar ñu ngi leen di ñaan ngeen rompi kàddu yi ñu ngi leen di baax di leen si aar alayhi wa sallam. di leen wax ni leen. yëngataay yëpp mën nañoo dal. mën nañoo bàyyi xel. ndax lii wàcc ci suñu kaw kenn ku ne ci ñun. soo doon wax xolam bu doon moom da ngay jàpp ni sëñ Mor sëñ Mor teewal. ngir mën a seqoon ak yow ak la war a dund ak yow. ñëpp la woon. kon su amee nii. ñun ñëpp dañ leen a soxla sama xel rek laa doon. ñi fi teew ci mbooloo macha allah. depuis talaata. bi keroog toog bi amee ba bis tey jii nii rek lay mel suba noonu duñ ko ci li ko waral nag mooy ku fi jógee fi ko yàlla tolloon fi ko yónnee fi ko tolloon waaye fi ko Serigne Touba tolloon ci li waaye fi ko Serigne Mor tolloon loolu moo taxoon li wax ñëpp dama leen di leen jarul sori sëñ Mor booy wax ak moom rek dama ci sori nooy nit la woon pour nite dafa nite woon kon moo ngeen xam ku bëggoon a jël kàddu te jëloo ko ngeen xam ne du ñëpp mën a jël kàddu toogaay bi yàgg na te tàng kon dañuy présenté ñenn ci ay nit ñu bari ñi ci des suñu béree ñu jël kàddu di dox ko kon mu borom bi nga xam ne moom la sëñ su lay wóoluwaat ñëwaat ko baat bi mu jox ko kàddoom sa ñu bay waaye dañ leen wax ne leen kër yi diine yëpp kon nañ wax ne si ngeen àllarba ak tey ji ñu wax si ci seen jàmba xool def leen nii mboolem xale bu sunu yi ci dugg ci nekk sa délégation wala different bu si moo doon different Sénégal waaye bu ñu la yëg ñëpp jàpp naa ne vraiment jàppale bi li tax mooy bu ñu ñëwee ci dëkk ñëw ci tànn bi des di gis njabootu Seex Xaadim kon ci ñoom la ñuy tàmbali Serigne Djili Mbacke ak Sina Léegi Serigne Moustapha Mbacke ngi nii Serigne Saliou Mbacke mu Serigne Abdou Salam ngi nii Serigne Mbacke Fall sëñ Mame Cheikh Ibra Fall bi murid laaj Serigne Khadim Mbacke ak Sina Léegi Serigne Alpha Ndiaye ak Sina Léegi kon day wane rek ni ñooñu bu ñu leen lumee rek mën nañu yóbbaale waaye am na nag. ñoo xam ni kenn du leen tudd te roxaani leen muy Serigne Dame Seck démb Serigne Didi Seck moo ko ñun fii la yàgg fii la yàgg bari ci démb talaata ak àll ba démb daal lépp moo ngi ñoo ko nekk ñoo ko nekk ñoo fi. teewul mu xëy yabalaat la ko dem yabal doomam. waaye lii dafay teew muy wàcc muy faal hmm, muy si muy ak foo mën a jógee muy caw maa ngi leen wax maa ngi leen wax yéen ni mu leen yore ak ni mu seqoo rek yéen ba tax yéen ñëpp kenn ku nekk ni bis bi sëñ Mor kenn du ma ko nekk maa koy demal sama bopp ba ci sëñ Mor Talla Fall bi nga xam ne ku ne xam ne di dem ak sëñ Mor Serigne Cheikh Ndoumbé Fall ku ne xam ne diggante moom démb fii la jabootam yi muy Serigne Saliou Fall di Touba waaye li nga wax léegi nag bi mu daan seet ak yéen lool dafa defoon li ko war a def démb daan na joo xam ne Moustapha war yàlla borom ak kenn caabu sëñ Mor Moustapha dee rek yàlla kenn caabu. seega nag bi muy waaj a génn àdduna sëñ Assane mii nettali na ma li ñu ko doon saxal da koo bind ñu ne ko sëñ Mor bàyyi ngeen mu ne damay julli waxtu yàlla loolu la sëñ Mor mu jox génn àdduna li ko tuwaat docteur yi doon solo da ko doon tëcc bàyyi ngeen mu ne damay jug yàlla waxtoom damay julli waxtu yàlla sëñ Mor damay julli waxtu yàlla da mu génne ci géewañam génn àdduna

Levamos al Señor. No le pegó el Señor a Paraza. No le pegó el Señor a Paraza. Grande Juan, grande Juan. Muchas gracias, muchas gracias. La ilaha, la ilaha.

production mooy def. njabootu sëñ Moussa Fall ñu njabootu sëñ Moussa Fall ñu doon ziara ñu may leen di toog ñu yeewu ñu may leen liggéey. waaw kay jërëjëf sëñ bi bisimilah jërëjëf. ma wax leen ni mu doxoon ci ñun ñëpp noonu la joxe woon cër sëñ Mor ak gëmoon sëñ Mor ak koo bëggoon ak koo ko jaawale dara sëñ Mor su ko soññi ci ndox ci moo tax tey njabootu sëñ Mor daa ngi sëñ Mor daa mel taa di xalifa sëñ Mor ak mbooleem buntu kër kër sëñ Mor gi mbooleem buntu kër sëñ Mor gi yëpp ànd ak ma tàmbalee ci ay atam Serigne Moustapha ñu ngi ci kàddu si Mor ñu ànd ak seeni doom dama kër sëñ Mourou Dia wala dama kër sëñ Moustapha Dia sëñ Mourou gi nii toog muy xalifa dama kër sëñ Khalilou sëñ Moussa nii toog muy xalifa dama kër Alaaji Moussa sëñ Cheikh a ngi nii dama kër sëñ Adama Dia Fakala ngi nii dama kër sëñ Moussa Kéré sëriñ Yax Yax yi maa leen dugg ci kër kër sëñ Mor yi dama kër sëñ Abdou Sow ah, dama kër sëñ Mamor ñoom ñëpp sëñ Modou eh, sëñ Modou maa ngi si nii mooy sëñ Aliou Guèye sëñ Aliou Guèye sëñ Moussa Kéré

moo ko taxaw moo ko toppatoo ba ñu def ko coono bi mu jël lii ba ñëw ñu dugg ci biir ñu yóbbu ko Touba mu continué ànd ak ñoom ñëw sax daanaka njaboot bi defoon leen joxe bisu sara si bu tey mu xëy des fois ñett la ñu jox kàddu la sëriñ Assane mu sànni ci kàddu yi mu war a sànni